Et ça nous a fait quelque chose quand on a vu le Pem. mu ñëw le robe avocat bi mais mu ñëw avocat yi warmaal ko teg ko ci table avocat yi dafa doon tekki lu bëri loolu vraiment on a vu comment aussi tu as vécu l'épreuve waaw lu am solo la mais on est venu également Pem parce que ci biir waxtaan yi rek ñi ngi ci intercoalition bi taxawagul woon Tambacounda mais jàpp nañ ne que tout. waroon ñu ñëwoon aussi pour rek indi ñu waxtaan. wax la ce qu'on a pu faire nga ko bu ñu entraîner ñu nit en fonction ni ñu xalaat. ñu mën a gën a joxante loxo encore pour Tambacounda pour que la victoire soit plus large. incha allah donc voilà loolu rek la woon. maa ngi maa ngi sant ñëpp. maa maa ngi sant maa ngi sant maa ngi sant ñëpp. maa ngi maa ngi ziar ñëpp. di rafetlu. ñëw bima ma ñëw fii euh, di di sant bu baax di son excellence monsieur le premier ministre Sidiki Kaba di sant madame Kaba bu baax a baax a bu Tamba yakarnaane sans risque de me tromper mën na maa wax ne ñii taxaw fii ñoo tax tumrankew parce que kii wax na ko léegi dañoo bokk Cheikhul Khadim wëlbatiku bokk Daaru Xuddos wëlbatiku bokk ci kër coot la ñu bokk te mënuñu ko séddoo muy Cheikhul Khadim rawatina Daaru bi mu njëkkee ñëw seet si ma jukkik nooru daare ni la def adiya indil ma jox ma sijaada bis bu nekk mu defi jéego yónni ay nitam ñu ñëw indil ma lu ma xewlu monsieur le premier ministre depuis dama koy wax ni que ling may indil xam nga ne du pour man parce que ay boli lek du pour man ay caisse yi fruits chaque jour du pour man mais bobu ma ngay xalat ñeneen ñima nekkal demb rek mo ci muju ben détenu néna ma mais président bo démé li mom li nga ñu tamal nu ñuy def mané mané ko ñaanal len Qui indi xéewal yi ak fruits c'est son excellence Sidiki Kaba kon suma guenné euh fi ma suñu borom tege won natt boobu du def ludul ñew remercier leen ci sen taxaway mais yalla défar ba mo bi ma waron dem ci kërëm ma fekk ko fi may wax né li am solo moy

rawatina nak bi nga xamé né li ñu ñu tek Sénégal yépp àndandoon nañu joy ko ak man parce que injustice la bo xamné ñëpp gis nañu na démé mais mm. comme li may wax rek li yalla di rafetal ngi vous avez vu au tribunal aujourd'hui le procureur gendarme yabu yakaron pour chargement gendarme yoy ba ñu ñëwee ñoo ouais kon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

ce qu'il m'a Et ça, et, et, aussi, aussi, Bima Gesto, ci suma mu place avocat ñu jox ko avocat bu le en référence ci euh, article yu mu malheureusement bobu fekk na nga c'est parce que jaar-jaaram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

luñu suñu borom tek nangu nañu ko luñu suñu borom saso nangu nañu ko saso na fekk rek mu nek njariñu rew mi jërëjëf merci beaucoup merci jaajëm jëf et restez sur place pour que puisse sortir tranquillement maaka maaka ah, kuma bi kuma bi Come on, baby, on

loolu daa leer ñoom di ibu iya. ana ibu nekkoon ci oto yi ñoo leen yéegi